tey retrouvaille bu mag la ñu am vraiment on est tous contents et très fiers pour la, le grand retrouvaille là. Donc euh, voilà, euh, on a retrouvé des anciens amis, des, anciens, des amis d'enfance. Nous nous magandons, footballons avec nous, défendons le barré avec euh, nous. On est resté pendant des années, on s'est retrouvés à travers ce match là. Donc vraiment, c'est une euh, journée de fierté et de bonheur quoi pour nous. ya tra wax na de pa waaw vraiment lii moom lu baax la quoi day wane ne am na dynamique bu baax boo xam ne foog ñu sauvegar ko waaw di ko def de temps en temps dafa baax dajaloo neex na ci xool ko mais message bi baax na pour xale yi gis lu mel nii parce que ñoom day taxawul si ñu xam ne lépp ci fo la mën a amee daal ak jàmm waaw rek day wane lu lu neex quoi loo xam ne xale war na ko jël comme exemple. initiative bi daal initiative bu baax la xam nga fii c'est la famille kii est réunie ici ku ni Médina wax Gueule Tapée ñoo bokk ndeyax baay te dafa yàgg du tey ñu ñëw nag tey am mbégte bu rëy. parce que dañ fi nekk ay ancienne gloire boo gestoo gis Omar Gueye Sène gis Traoré gis ñoom Sega Ndiaye ñoom Mbaye Mbaye gaa yëpp a ñëw vraiment fiertele pour ñun ndax daf ñu rappeler beaucoup de choses ndax fii ñun fii la ñu cosaanoo fii la ñu juddoo fii la ñu defee lépp te différence dage amu fi fii ñëpp benn la ñu kon lii bu ñu ko defee rek lu ñu war la luñ suñu devoir la te fii aussi daf ñuy rappeler suñu tonton suñu oncle As Diack yi nga xam ne ñun ñëpp dañu jaar si moom ñu koy ñaanal gudd fan ak wér di ñaan suñu borom defal ñu jàmm. bon fii li ma fi mën a nettali bari na mais benn rek laa lay wax kii taxaw nii El Hadji Gallo Thiam bu ma taxaw fii daf may rappeler benn coup franc bu mosoon dugal à 45 mètres courant bu coup franc boobu kenn du ko fàtte waaw courant coup franc boobu moom vraiment kenn du ko fàtte te bu ma xoolee aussi li ma lay wax les anciennes gloires. ku si mel Omar Gueye Sène ancien international de même que Abdoulaye Traoré ñoom Séga Sakho ñëpp ñoom Mbaye Mbengue ku lim da ngay fàtte mais ñii ñëpp vraiment bu ma waxee rek ñun nous sommes témoins de l'histoire seen parcours ñun dañ ko yàgg rafetlu ñu yàgg liggéey si réew mi yàgg liggéey pour la Médina pour la Gueule Tapée partout lépp loo mën a imaginer dans le milieu du football rek ñoom indil nañ ñu ko nga gestu fii gis ñoom booy bandi si biir terrain bi loolu vraiment histoire la boo xam ne bu ñu koy waxte on risque de passer la journée ici kon daal fierté la pour ñun ñëpp ñuy ñaan yàlla nag lii mu doon une continuité yàlla bu mu yem fii ndax fii ay frères rek ñoo fi daje famille rek ñoo fi daje vraiment yooyu ñu ngi lay remercier bu baax a baax. journée tey ah, baax na parce que yi ñoom war nañ koy def parce que jéego ak penc. ay ay ñoom seen i dirigeant ay xarit la ñu moo tax bu ñu amee initiative bi eh, invité ñu vraiment vraiment dañ ci kontaan ñun ñëpp bég ci yii dañ ko war di def toujours dañ ko war di def toujours fii fii sans bopp modestie à part fii fii man May Fall Cheikh Fam Seydou Ba équipe bu jaraaf boobu sunu génération moom la may fàttali daan euh, fees del fii yëpp jeudi daan fees del parce que deux camps la woon waaw des souvenirs la souvenirs yu bëri ngi fii ci ñun waaw moo tax léegi mais ñu ngi sant yàlla ñu ngi sant yàlla waaw waa sur l'invitation de l'ASC Diecko jeko ma lañ ma woo ne ma dañu bëggoon pour ñu ñëw fii jouer ak ñoom donc euh, aujourd'hui donc ñu ne ñu def équipe ñëw jouer ak ñoom mais ça me rappelle bokk beaucoup de parce que man je suis un supporter de l'ASC Jaraaf bi may nekk xale daaw ma raté benn entraînement Jaraaf donc boobu terrain bi melul nii y a une évolution euh, si ñu koy sant yàlla avec l'état du terrain donc euh, vraiment aussi c'est une bonne chose qu'on se regroupe entre vétérans jouer ensemble pour wane ni Médina ak Gueule Tapée benn la on profit aussi pour remercier nos anciens di suñuy mag ku mel ni ñoom Omar Gueye Sène ñoom Maguette Traoré ñoom Mbaye Mbeng ñoom Sega Sakho ñoom ñëpp ñu ngi fi donc vraiment na quoi waaw la jeunesse pour ñu xam xool si lii rek xam ni football moom dafa war a foo wax la mais pas violence donc pour ñuy regrouper wu aussi ñoom seen biir tous les dimanches des fois bu ñu ko mënee di dem leen te di dikkalante donc àdduna moo tëddee noonu quoi foog ree la rek. ben daf may rappeler bi ñuy préparé wu di ak euh, demi-finale ñun ak Yes Gorée donc euh, période boobu vraiment dañoo amoon équipe trop ñu dem demi-finale coupe du Sénégal euh, coupe du Sénégal ñu dooroon Gorée 2-0 période boobu la may fàttali quoi donc avec ñoom Mbaye Fall xam nga ñoom Bassirou Sarr xam nga ku ne ku wax Bassirou Sarr di nga xam ni kooku équipe bu yàgg la si Jaraaf. donc ñoom Moussa Diop Kër Marie Gata Ndiaye donc voilà souvenir yooyu laa am quoi ci terrain bi. bay maa ngi lay ziar man Gallo Thiam laa tudd ancien capitaine de l'ASC Diecko euh, voilà. Eh, euh, waaw waaw. ben genre journée yi dafa dafa baax parce que dafay raffermir euh, les liens de solidarité. Euh, d'amitié yi nga xam ni dafa mës a nekk entre euh, Gueule Tapée ak Médina surtout rawetina entre Penc ak euh, ak Gekko donc ñi fi teew rek wone na ko maa ngi koy wax sànq dafa am yoo xamee ni ba ñu nekkee ndaw su fekkoon ni lépp dafa yàqu day jafe soo nekkee mag nekk nañu mag mel ni dara musul fi yàqu kon boog ñun jàpp nañ ni. Euh, lii nga xamee ni moom moo am si diggante match bi tey nekk na loo xamee ni réveillé na beaucoup de souvenir ndax terrain jaraaf bi ñun fii la ñu daan foowee fii lañu daan defee suñu euh, lépp quoi donc à telle enseigne que journée yu mel nii nag dafay baax ñu koy def et c'est important. ben oui euh, loolu laay wax c'est des c'est des légendes yoo xam ni on a joué man par exemple moi j'étais joueur de l'ASC Djeko et également jour de l'ASC de de du Jaraaf. moi j'ai joué avec euh, Omar Gueye Sène mu nekk réserve ma nekk euh, gore ma nekk réserve euh, Jaraaf ñu joué j'ai joué en tant que quelqu'un koo xamee ni xale la woon ak mbay Meng j'ai joué avec Sega Sakho ah donc moi je pense que yii yëpp dafa nekk loo xamee ni lu am solo la message may lancé yéen mooy jeune da ngay am référence jeune da ngay am repère soo amul référence amuloo repère kon sa dundin dafay naqari il faudrait que que les ñu xam ni lii ñuy def nii du pour dara mais di leen fàttali ñu xamee ni am nañ lu fi jàmm sa am te mu rafet kon bokk ma je pense que c'est important. mooy vétéran jekko yi ñoo def match amical ak vétéran penc yi waaw jublu bi mooy message bi ñu si mooy grand yi bu njëkk ñoom bu ñu daan football ay xarit lañu woon moo waral ñoom ñu ma tëgg match bi ñu jël ñu ñu jeunes yi nekk ay man ay Mata Ndiaye Zico ñu ñëw fekk leen di leen jàppale parce du wax ñaari équipe la benn équipe la quoi parce que dañu daan demlante quoi moo tax ñu mën a tëgg mi ñu leen wax mooy dañu war a mën a demlante xam ne sport bi dafa war a boole doomu yëpp nekk ay xarit parce que a boole ki dëkk Médina ki dëkk Gueule Tapée war nañu a xamante si nekk léegi mooy dañ jaxasoo parce que dañuy fubal léegi bu njëkk xamante bi si amoon dañuy joué léegi après ñooy toog àndaat xam nga loolu lañ si joglu pour ñëpp boo yi gën a xam ni football daf ñu war boole waat ko non am na yeneen ASC parce que waa jàppoo ñi ngi koy def waa jekkoo ñi ngi koy def am na benn match boo xam ne dañ ko organisé woon waa Medina bi yëpp si boole ñëpp ñëw bu ñu joué benn match amical ñëpp jaxasoo ah, am amul jekkoo am dañ jaxasee dosaar yëpp ñëpp solandoo ñu joué. Euh, kilifa jekkoo yi kilifa Gueule Tapée Penc xam nga Mbati Pom Fann Delorme jekkoo ñëpp maa la nuyu Kusum ku lim juum ay ngaraaf ñëpp sanca ba tout man moom football naa ba bàyyi nawetaan francement man doomu sanca ba sama yaay sanca ba la juddoo kër nga suñu këru famille sanca ba mais tey man li ma joué ba ñëw jekkoo man dama amoon amuuru joué jekkoo ba may ñëw jekkoo di joué dama pare équipe nationale Youssou ñëw toog si tribune bi stade amitié ñu naan Maroc moo euh, Biralo léegi par la suite euh, ba ñu paree fekk euh, David Thiaw Alice ñoo ma doon topp ma joué jekkoo affaire yooyu genre affaire man la man dinaa joué jekkoo ma ñëw Youssou tegal ma xaalis bu bari ma delloo ko ko man xaalis xaalis indiwu ma jekkoo lu may ni jekkoo mooy amour xam nga c'était juste que pour ñëw xam nga relever benn defi mais football waru am violence parce que tey jii nii jekkoo penc xam nga tey boo xoolee grand yi nii dafa neex xam nga tey ma juge penc ñëw j' jekkoo aw ma lu ma si hésité parce que penc penc ak jekkoo benn lañ famille la Mbaye Seye. Uh-huh. Uh-huh. waaw parce que tey jii Mbaye Seye loolu mënu dañ si moom parce que don la don Mbaye Seye loolu don la Mbaye Seye don la tey dañ ñëw j' jekkoo ñu jógee jekkoo mënoo booy kaay dames ñu joué xam nga moom moo ma jiitoon dames après ma ñëw dames ñuy joué dames ñuy woowee dames Chelsea xam boo ma maanaam moom moo amoon entente tey suñu premier mas ñu ne Dames ñaa Thioker histoire football Dames Dames musul gagné Niayes mu musul gagné Niayes Thioker si mas ñu ñoo relever défi boobu. si biom euh, Dames Niayes euh, Thioker deuxième but bi parce que da ngay xam ne kii dama retrait en force si devant les buts. mu liir loolu jaayu àndax bal bi si biir camp yi waaw. ok xam nga benn affaire bu may njëkk a mooy gis nga fii Médina muy Médina Gueule Tapée Fass c'est que booy da ngay da ñaax booy dañu war dañu war a dem entraîner ji parce que tey man mu ma jël championnat Sénégal koy seet ñëpp ay étranger lañ ñii ci àll bi la ñuy jógee ñii ay ci banlieue bi la ñuy jógee te du yoon te fii booy am na booy yoo xam ne dañu am talent mais gars ñoo leen war a jàppale te booy tamit ñoom ñoo war a am jom xoola dem entraîner ji te toog di bàyyi si toog si taata di wax parce que jour dafa am lu mu laaj chaque jour loolu laa leen wax parce que mu ngeen nekk nga ñëw géex ay ñoom mbéy say set nga ñëw gajar nga defe ne kii mais loolu du référence da ngay dem ñefe nga dem entraîné sa sa nga daan mu wóor na di xool yow da ngay nekk préparé sa jour nga nekk jour comme man compétiteur laa fu ma dem dama war a jouer parce que ñun loolu lañ defoon suñu bopp ñu ñun mosuñu dem di xalaat fenn sax ñu dem di jouer ñu ne duñu jouer lu mu metti metti dañuy jouer parce que man xoola man metti bi laa nekkoon xoola gia metti bi ay ñoom kii ñoxor ay ñoom Ousmane Ndoye ay ñoom kii te billaay man man la neex ma jouer quatre matchs daw mais ba dama ñëw baax Pascal dañu ñëw gëm suñu bopp pour xool dañu ñëw gëm ne dañuy fubal mais booy fii léegi motivation lañ ñàkk parce que amul koo xam ne il faut comme ni nga wax il faut ñu ñëw di waxanteex booy yi comme ni ñu wax rek Grande Médina moom moo ñëwaat tey parce que Jekko penc xam nga ñëpp benn lañ Médina ñëpp benn lañ parce que ñëppay duggante ñëppay xam nga ñëppay saafante ñëpp benn lañ fii ci Médina waaw moo tax tey lii bu amee duñ ne gulet quoi macha allah chaque jour ma ñu ngi koy essayer di def muy réussir di ko def di ko def te te tamit dañu bëgg a continuer di ko def ba suñu doom yi di ko def lépp pour ñu nekk benn. Médina ca kanam waaw waaw Médina ca kanam moom xam nga léegi maa ngi ko tuddee Grande Médina léegi Grande Médina parce que léegi ñëpp ngi bokk. waa Médina waa Gueule Tapée waa Fass waa Colobane waa Gibraltar ñëpp ngi ñëw ci ataaya bi kon léegi malgré Médina ca kanam la mais maa ngi ko tuddee la grande Médina léegi macha allah. DK TV mooy Dakar TV people. man Niakhar Gno aka Faramareen musique maa ngi seetaan DK TV. voilà man la Mame Fatou Ndoye maa ngi seetaan DK TV. Maabo. Maabo jaajëf waay DK TV. kon man El Hadj Bekay Mbaye maa ngi seetaan DK TV. man Malick Thiandoum maa ngi seetaan DK TV. oui man Moustapha Guèye maa ngi seetaan DK TV. man Viviane maa ngi seetaan. DKTV. yes sir yes sir Wally Ballago Seck mi connecté wu ci DKTV people ah. waaw man a Hadj Bilal Koutia damay seetaan DKTV. pour yu am solo. ngaa ko blende maa ngi seetaan DKTV. di dundu gis DKTV. Malom Zodal maa ngi seetaan DKTV. pré lañ ma liggéey la ma liggéey DKTV way dina ko seetaan waay voilà. yàlla na ngeen nekk ca kanam li neexul. connecté wu leen